barkeel ngeen bu ñu leen di saaga di leen fitnaal di leen sosal lépp lu bon ngir man bégleen bànneexu ndax seen yool dina rëy ci laaxira ndaxte noonu lañu daan fitnaale yonent yi fi jiitu yéene di xoromus àddina bu xorom si sàppee nan lañu koy delloo cafkaam du jariñati dara